maa ngi leen di gërëm bu baax ci teewaay bi ngeen teew fii teewaay bi ñu teewaay bi ñu indi fii nag teewaay bu am solo la teewaay ju mat a teew ndax teewaay bi li ko wundu mooy association Lanor Sénégal association Naroot Sénégal nag dafa nekk association boo xam ne développement moo ko tax a jóg jàppale réew moo ko tax a jóg jàppale doomu aadama yi moo ko tax a jóg rawatina sama mbokk jigéen yi kon association boobu am na solo ndaxte nee nañu jigéen mooy lépp jigéen mooy àddina jigéen mooy yaay jigéen mooy bànqaas kon association bi bu jógee jublu ci jigéen yi jàppale na góor jàppale na ndaw jàppale na ñëpp ndax jigéen mooy ndey association bi nag ñu ngi ko sos ci le diset juin yàggul judd mu ngi tollu ci ay ñeenti weer rek amaana jéego yi nga xam ne jot na koo def ci biir senegaal moo tax mu teel a law teel a àgg fu mu àgg te man mi nga xam ne maa am xalaat boobu ba tëral ko yendalu ma fanaanalu ma dama tëj sama kër bàyyi sama njaboot ne dama koy dem jaayante ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci village yi parce que dañ koo soxla dëkk yi métti na métti boo xam ne tar na tar boo yoo xam ne ci jigéen ñi boo nekkul ci terrain bi doo ko xam te pour nga xam ko foog mu dugg seen biir man nag damaa jël volonté wu dem dugg seen biir mën a xam lan la ñuy am nag ay xam-xam yoo xam ne mu ngi ci man ay formation yoo xam ne maa ko dem jàngi am xam-xam bi ma ne man xam-xam bi ma am lan moo tax ma di ko jëriñoo man kese te mun ko bokk ak ñeneen rawatina jigéen ñi ma ne man fan laa war a dem ah naa dem ci dëkk yi nga xam ne soxla nañ ko moo waral ma dugg ci biir dëkk yi dëkkoo dëkk ma di fa dem di fa joxe sama xam-xam di ko bokk ak ñoom lépp nag ci développement te nee nañu développement. ci jigéen la gën a gaawee jigéenu Sénégal ay jàmbaar lañ ndax saaboo boo yeewoo fajar 5 heures du matin da ngay daje ak ñoom ñoo ngi ci kaar yi ñoo ngi ci marché luuma yi ñoo ngi ci marché yi ñoo ngi ci tool yi ñoo ngi fépp sunu yaay dañoo daw ba sol coono googu nag ñuy daj bu ma mënul dindi lépp wallahi bëgg naa dindi lu bari looloo waral ma dem dugg seen biir bokk ak ñoom xam-xam bi di leen dem jàngal ay formation yoo xam ne dañuy mën di demal seen bopp ndax nee nañu kat am xaalis neex na de waaye boo amee xaalis te noo koy téyee du yàgg yow li mooy nga dem ku ci xam-xam uti xam-xam amee xam-xam ba pare lu ñëw rek di nga ko mën a téye ma jiital ci ñoom xam-xam di leen defaral ay formation yoo xam ne dañuy mën di demal seen bopp formation yi bari na module yu bari wan naa leen ko ndax dañ ne bay du dee réew kat soo ko bëggee développé da foog nga boole ci mbay waaye boo bayee ba pare te xamoon noo koy dencee loolu problème la problème boobu nag laa bëgg a tegg ci yéen boo leen bayatee ba pare ngeen xam naka ngeen koy dencee boo leen bayee tamaate day yàqu doo leen xam noo leen koy dencee ma wan leen naka lañ koy dencee ba nga xam ne dina def ci yéen 6 mois ba 1 bu leen neexee jëriñoo ci biir kër gi bu leen neexee jël jaay lu mel ni Fatick lañ fay bay bari na te dafa am njariñ dugub bii am na noo koy def def ci ay araw def ci yeneen ak yeneen di ko jaay pourquoi pas doo ko génne ba bitim réew bisaab bi muy buy bi yooyu yëpp mun nañ ko defar te wan naa leen ko ngeen ciy defar ay jus soxla woo leen sax frigo ndax objectif bi ma koy am dama cee sóoraale ñi nga xam ne dëkk yi nga xam ne amuñu courant bari na dëkk yu ma dem ñu may jooy courant ñooñu boo leen bëggee woon méthode boo xam ne courant lay àndal du mën a nekk duñ ko mën a def ma won leen ay méthodes yoo xam ne dinañu am seen jus di ko denc ba 6 mois 1 te ñu soxla frigo bu ñu amee nag courant mu gën a neex ci ñoom jigéen ñi ma jàngal bari na ñu bari ñu demal seen bopp créer seen euh, bureau di liggéey léegi ñu ngi mën di demal seen bopp bu ma leen déggatee dañ may woo pour def seen commande produit defar dem seen demal seen bopp te jigéen ñi dañ leen war dañ leen war a jàppale jigéen ñi dañ leen war a jàppale parce que dañoo sonn dañoo sonn lool ndax boo nekkee ak sa borom kër mu dem ba tële mënatul jël retraite yaay yi ñooy daw gauche droite bu xale yi laajee baay baay amul dafay dem ci yaayam na ko yaay ah man de damaa am soxla bi soxla bi te yaay nag du tànkam lu yaay du tànkam lu soo ko laajee yorul jël na ci oor yi jaay wala mu jël ci jur yi jaay wala mu dem jël yërëm nëbbatu jaay waaye lu coono boobu yëpp maanaam am na lu ko mën a teggi mooy ngeen dem sàkku ji xam-xam comme yoon bii ma leen wan ngeen di defaral seen bopp di jaayal seen bopp di amal seen bopp ku leen fëgg ngeen jox ko seen maa ngi dégg fan yi ñuy wax ci géej gi xale yi nga xam ne ndeysaan ñoo ngi koy jaayante ci biir géej bi ma leen di wax ne jeunesse bi loolu du solution outil de baax na waaye dëkk bi ku sañoon boo yeewoo dangay nekk ak sa njaboot nekk ak sa yaay nekk ak sa baay nekk ak say doom tekki fi te doo dem fenn waaye dëkk bi dafa xaw a doy waar waaye tamit jël gaal bi du solution jël gaal bi du solution ma leen di ñaan yenn sama yaay yéen ñi nga xam ne am na ñoo xam ne kër gi day métti ba ñu jël xaalis jox seen doom pour mu jël gaal gi loolu du solution nañu utal ndaw yi xëy nañu jàppale ndaw yi créer ay emploi def ay formation comme ni may defaralee formation jigéen ndaw yi nañ leen defaral ay formation cadre leen utal leen ay liggéey bu ñu ko defee dinañ toog ci réew mi ndax loolu mooy yoon fii ku sañoon doo bàyyi sa njaboot dugg ci gaal yi dinaa maa ngi wuti waaye nag boo yeewoo gis sa yaay yorul dara ndékki war añ war reer war yoroo wallaay da ngay saali googu nag moom moo dugal ci yooyu waaye yooyu du solution dañuy tàllal loxo rekk président mu gën a bàyyi xel ndaw yi ndax c'est important ndaw yi ñun Sénégal dañ leen naan soxla soxla leen ci biir réew mi ngeen jariñ seen réew demum gaal googu du solution nañu jéem a xool naka lañ leen di tegee loxo ngeen toog ci réew mi jëriñ seen réew bu weesoo loolu ñu delluwaat ci nanoor nanoor nag initiative bi nga xam ne moom laay jël moom mooy développement accompagné par femme yi yi nag ñoo dox ba bëggal seen bopp ne ma ah madame Oumy Diouf li jot de jot na dañ la soxla fee ci pénc ma ndegam yaangi jël sa alal ken nekkul sa ginnaw du financement du partenaire bokuma ci benn parti j'étais apolitique musuma politique ñu woma ba ne ma bëgg nga téwal ñu fee ci pénc ma ndegam yaangi jël sa alal diko bokk ak ñun buñ la yóbboo fee sa penc ma loo fa am duñ ko indi bokk ko ak ñu te duñ ñu yoroon suñu kàddu foofu soxla nañ la ca penc ma assemblée nationale nag dañoo war a changer xar kanamam te yéen ñi yéen a war a mën a changer xar kanamam ndax kër googu dañ fa war a xellee lu baax xellee fa loo xam ne day jëriñ askan wi yéen ñii di doomu réew mi yéen a leen fa teg lañ fa war a waxtaanee. mooy luy jëriñ réew mi luy développer réew yi luy gunge ndaw yi luy di gunge jigéen ñi luy gunge xale yi loolu lañ leen fa tegee waaye du ay xeex ay xastante ay waxante lu ñaaw kër googu këru defar la moo tax boo leen di tànn dee leen tànn ñi nga xam ne boo leen xoolee di ngeen di gis seen bopp ci ñoom amana nak lolou lañu gis ci man ba bëgg ma yobbu ci penc nak ma dankon ci ak ñoom dem assemblée nationale nak ci yeen lay jóge moy ngëm-ngëm bi ngeen am ba top sama gannaam ngëm-ngëm bobu ngeen di am ba and ak man ba suñu objectif bi ñu bëgg ñu am ko ngeen xaat xar kanam ya fa nek tek fa nit ñoo xamne dañ leen fay nekkal di fàttali soo son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay am na ay jamono may seetaan sa benn interview nga naan danga daan tëdd ba guddi di yëg sa way jur bu jigéen di yëg ay mettit ndax coono yi liggéey ma lay xamal ni président coono jooju jóg fa ma nga fa ba léegi gestu jigéen bàyyi xel jigéen ndax jigéenu village ba soxla nañu ndimbal lool lool sax am na dëkk yu bari yu nekk ci biir village yi yëguñu développement bi ñuy wax wallaahi yëguñu ko te war dañu ci ci dëkk bi lañu bokk nag dañoo war a yëg seen bopp ñu dimbali leen àggal leen fa ñu war a àgg bàyyi xel ndaw yi bàyyi xel jigéen ñi bàyyi xel jeunesse bi man nak bes ni ki tey maa ngi ci sen loxo fo len ma joxoñ ma dem fa te fe ngeen ma joxoñ bo len ma fa wé man gëm na ni dinañ fa jëlé ndam te buñ fa jëlé ndam te buñ fa jëlé ndam sen jangoro sen metti bu dañul ba jeex tàkk wallahi la fay dess du bari ndax man mii di wax ak yéen man développement dooma moo ma ñor loo may woo te nekkul développement doo ma gis man luy gungee askan wi luy avancé loo jigéen ñi loolu doomu moo ñor ummi ma leen di tàllal loxo nag di leen ñaan képp ku nekk ci yéen na am ngëm-ngëmu ne Sénégal mën nañ ko jëmale kanam ci anam yan mooy ngeen takku jóg xool ñak ngeen du yóbbu ca pénc ma maa ngi leen nag di gërëm ndax guddi na di leen gërëm di leen sant seen teewaay bi ngeen fi teew sama xol sedd na village yépp gis naa leen ñi nekk Fatick Bokkal Richard Toll ñëpp gis na leen ma ngi leen di sante di leen gërëm di leen xamé na sas bi ngeen ma sas dina ci and ak ba mu jeex